asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di fu ngeen mën a ne tey nag ñu ngi biir jàmm ak ki ñu toogal bu ngeen ko gisee yaakaar naa du ngeen ko laajte ndax li muy def macha allah am na lu mu ciy wane am na yaakaar yu ñu am ci moom muy kan du ma ko wax waaye daal ñu ngi toog mais xool leen lii Seck Siteu kon loo ci mën a dégg nu kër Siteu moom wala bu bu bu ngeen gisul Siteu tamit man ngeen am ngeen gis koo xam ne ndawal Siteu lay doon waa doomu ndeyam ah maama Lamine borom Lamsar borom jàmm gën si gàmbaaw bu faas mbaaw sax bëggee naa la. mbay sa Sadikh maa ngi lay siyaar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay bu baax waaw di sa caméraman bi di siyaar kilifa diine kilifa aada yëpp comme ni ñu koy waxee rek sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sëriñ Abdourahmane Mbacke yàlla na ko yàlla yàlla yàlla yokki leen taas ñu si barkeem di nuyu Baye Karim Mbacke Fall bu baax a baax ak soxna May taawam. ak Serigne Sidi Mbacke alxuraan bi nga xamante mooy borom jàmm gan borom si Kambaaw ak maam Cheikh Anta Mbacke ak kii borom belal sama sëriñ la quoi xam nga rek xel day fatam mooy loolu maa ngi leen siyaar di leen bëgg bu baax di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal fépp fu waay mën a nekk waaw li fi dugg ci nag muy feebar bi gën a si ñu ngi ñaan suñu borom génn ko fii ci nu mu gën a gaawee waaw ndax teen activité yu bari téye na activité yu bëri mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla mi ko fi dugal ñu ngi koy ñaanit mu génn ko fi ci waaw ah, ci dara léegi maama kon daa mel ni feebar boobu moo tax nga takk lii nga takk de. waaw ah, gars yi ne nañ takk masque yi rester chez vous waaw ah, lañ koy doxalee waaw <laughs> tubaab moo programme lépp. waaw <laughs> moo ne ñu moo ne ñu sorente xam nga comme fi nga toog toog gis nga bi ni ko defaree. mun naa ko jël dem bii mun ngaa jël dem noonu la demee. ku ne na sa morom. mais tey nga toog di jeune sénégalais feebar bu ci àddina bi ñu gis ay réew yoo xam ne dañu doon wax am doole la ay États-Unis Chine Italie France Angleterre ay ay Hollande dëkk yooyu yëpp dem ba sëngee mën nañ ne am problème loolu tey àddina bi luñ ci war a mën a jàngate. non bëri na bëri na mais man pour man maa ci gën a nekk ndaw lenn li ma ci mën a wax mooy maanaam dañ koy sante yàlla suñu borom. sante ko yàlla bi mu ngi jóg ci ñun ay jaamal nekk ci àdduna di dund pendant waaw lii daal bi mu fi géejee kenn mësu fi gis quoi ñun fekkewuñu woon lii comme maanaam bu yegsee rek dañuy jàpp ni mbiru suñu boroom la mais lii taxaat suñu borom xam ne ñun ay jaam yu ko fonk lañ te ñu ko gëm lañ mooy maanaam ñu bàyyi comme di genre nit ñi def li ñu war a def mooy di ñaan ci yàlla comprendre nga di ubbi jumaa yi di jaamu yàlla di tudd yàlla ngir suñu borom mun a wàcc mun a dindi feebar boobu. kon yow tëj bi ñu tëj jàq yeeg jumaa yi ba ci église yow àddoo ci loolu. man neex dara neexu ma ci. dara dara. waaw balaak musiba suñu borom moo koy wàcc fii ci àddunaam mais jox nañu garab bu koy mën a saafara garab bi mooy ñu ñaan ko mu teggal ñu ko. yëpp jullit na ñaanay ngànnaayam de. ngànnaayam te nag am na leneen luñ ci mënti dox rek mën nañoo sooy boobu léegi ñun ñaa ngi takkaloo ñun ñi max ñun ñee ngi dem affaire yi di gën a yokku kon nañu bàyyi li ñu war a def ñu def ko parce que yàlla mooy borom jaam ñi comprendre nga suñu ngëm-ngëm nag ci suñu borom loolu suñu digganteek suñu boroom la nekk feebar bi fii la nekkoon comme ci néeg yi la doon nekk léegi dafa dem ba romb néeg yi nekk ci kër yi dem ba yegg si mbedd yi dem ba yegg si si monde bi comprendre mais tey lii ak luy mënti xew rek man dama ne nañ jël lépp dellawaat ko suñu boroom te di parce que leneen li ñu ciy def rek ñun ñu ngi gën a sonal suñu bopp ñun ñaa ngi dee te feebar bi dalu leen comprendre ñun ñaa ngi faatu ñu naan feebar bee leen rey léegi lu ciy pexe. bu jàkk yi daal ñaan yow lal nga gis est-ce que loolu du doon rassemblement parce que ñoom dañ ne rassemblement la bañ maanaam nit ñu dajee jàppal bàyyil rassemblement ñun ñun ay jaamu yàlla lañ yàlla rek lañ yaakaar ku dul yàlla ñun gëmuñu la comprendre mais tey jii 4 avril rassemblement boobu ñuy bañ 4 avril def nañ ko. fan ko def foofu ci biir pale bi ñun ñi dajaloon nañ ñuy def seen business. président waaye président ak ñeneen. kon daal yow d'accord kon yow su ma la déggee kon yow dogal. muy gën a foor fuuf looy gis ci àdduna. moo gën a foor. moo ne feebar bi bu la doon dugg rey la léegi léegi sax da waru ñëw tëj jàkk waru ñëw bañ a def leneen dañoo war a ubbi jàkk di def lépp lu war a def. pare di moytuwaale. di moytuwaale. boo teree nit génn guddi guddi gi mu génn ñuy xëy kaay di gën a yokk quel est problème guddi bi ngay tëj nit ñi bëccëg moo fi des mais bëccëg nit ñi dañuy génn toog gis nga ni ñu fekkee ci mbedd mi noonu lay demee. mais marché itam ne nañ actuellement ñi dañuy jaay fan yi ñuy jaay tey ñu koy ay ayloo loo léegi. dafa métti loolu yëpp dara jaru ko nañ jël lépp teg ko ci loxo yàlla ñi war a liggéey nañ leen bàyyi ñu liggéey ñi war a yalwaani ñu bàyyi la ñu ne ñoo xam ne Babacar bu ñu xëyee du ñu ñu lekk. comprendre dañuy mën a jaay am lu ñu mën a dumbalee seen njaboot. mais maama feebar bu wàll tamit est ce a def est ce que a bàyyi a demee. Hmm. Ah, ah. <laughs> da koy yàlla ma gan yow maama. waaw ah, ki mu jël bakkanam laa bëgg nga ne ma da ngaa gëmut feebar bi. non non man man mooy loolu man taalibe Sëñ Tuubaa man gëwuma leneen waaw man feebar bi bu fekkoon dañ ne kii yoo ko yor te moo yor kii kii koy wàlle man mënuma koo sori ndax damaa jàpp ni ku ci mucc suñu borom moo la muccal comprendre ku ci dugg rek suñu borom ma la ci duggal ndax moom moom musiba moom moom balaa yaa ngi de mais leneen lu ñu ciy def dañuy gën a sonal nit ñi toog ci kër lekkoon naa naanoo dee moo gën a métti lii Babacar nañu waxante dëgg rek. daal kon ñaan nga gis daal ngir affaire bi jógee. non loolu ñaan moo koy dimbali leneen mënu ko dindi ay moytu ay tax mag si nit ñi garaawul waaw da ngay protéger rek mais loolu taxul nga mucc si hmm, li tax ngay mucc suñu borom moo la ciy muccal. ay borom yi doole de dal na leen dégg naa ay Albert dëgg ay ay borom yi doole ci àddina. ñooñu ay borom ay milliardaires lañ ah. waaw am nañ ay sécurité yooyu yëpp léegi ñooñu noonu est-ce que def nañ lu tax suñu borom teg leen natt boobu. Hmm? man la laa defal suñu borom lu tax tegu ma natt boobu mais ñëpp ay jaam lañ kooku bu jëloon addunaay sécurité ñu sécurité ko bu waree dee dee dee bu waree dee du dee mu feebar bi teggee ko si comme mais nit ku nekk da ngay xool sa diggante ak sa borom looy def xool ci sa borom ñun yàlla mu ñu téye moo ñu sàkk comprendre nga lépp lu mu sàkk ñun la ci gën a bëgg. ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mi sàkk Seydina Muhammad jox ko julleeg koor wëlbatiku moom di julli ci yonent bi kon julli ak koor ak alxuraan kenn du ko foowee ci àdduna wallaahi kenn du ko foowee tey nag beneen maama laa gisatil ma maama daal bëri nay pax bu ne lay génn nous sommes des ci dëkk bi lañ dëkk di ay taalibe comprendre nga man wax ma sama bopp man mën naa xëy cinq jour wala dix jours duma génn sama kër comprendre nga mise naa ko quoi yaa ngi dégg bu ma soxlaa dara mën naa woo xaadim mu may ma ko comprendre nga wala keneen ma woo ko may ma mais ñun tollatuñ foofu comme maanaam ku ci nekk ñu tënk la ci benn lañ la tënk rek ki ngay tënk boo koy tënk ci la koy tënk da koy jox la muy dundee comprendre barki dem ñun fii lañ dëkk benn maire daa génn yónni doom pour mu jënd lu ñu reeree dafa génn gars yi jàpp ko bànkaan ko dóor bi muy bëgg a dee. ki naa joxe nañu ceeb ceeb baa ngi war a ñu ngi ko war a jox nit ñi. ceebu lan. ceeb bi ñu wax ne moom la président jox waa moom la jox askan wi ay ceeb ak diwlin nag yooyu ndimbal li waaw. ndimbal boobu ñuy dimbali moo ñuy rey. Hmm. ndimbal dina rey nit. ndimbal ndimbal la cay fekk loxoy borom. Sénégal ñu ngi ci ñu ngi ci ñaata at yoo xam ne ñu ngi fii di dund. ñaata at comme liggéey bi nit ñi liggéeyatuñu est-ce que du tax nga bàyyi ñi ñi liggéey moo gën a yomb saaku ceeb daa mën a dundal ni Babacar nañu waxante dëgg bu ñu naxante quoi benn saaku ceeb wala benn bidon dawlin loolu boo ko doggee 15 jours wala 10 jours mu jeex ñu loolu am na lu ko gën gis nga feebar yi ku ciy dee na nga dee ku ciy dund na dund ñu bàyyi ñi ñu def li war a def. kon daal ñi ci ñi mu jàpp yaa ngi leen di ñaanal ñu wér ak ñoo ñooñu ñu jàppoon bi jàpp. ñu wér nañ keneen ñu si dolleeku yëpp ñu ngi leen ñaanal ñu wér parce que ñaan luñ kenn mu am tawat tawat moom kenn ñaanu ko suñu borom mi ngi fi wàcc sax bu sañoon bu ko neexoon tey tey tey mu jëlee ko fi waaye xool ñun ngëm suñu ngëm fan la tollu ci moom moo waral mu deme nii léegi ñun bu ñu toogee di xaar di bàyyi waxu suñu borom di déglu waxu keneen kon ça veut que ñun nekkatuñu ay jullit lan mooy jullit julli woor di woor natt asaka joxe muuru koor di aj màkk mais loolu yëpp bu ñu ko tënkee lan mooy julli léegi ñu waxante dëgg da nga jàpp ne feebar ab jaam rek. ab jaam la jaam la nit ñun jaam la am na feebar yu gënoon a métti li ko fi ay ay Ebola. ay peste dégg naa amoon na ay ja boo fekkuñu fi. yooyu gën a karaaw comprendre nga. léegi ma yow ci làmb ji li nga wax nit ñi dégg nañ ko damay ñëw yow ci làmb ji. Euh, Maama Lamine lamb ji taxaw na li ko waral mooy corona bi wax nañ ci corona ba pare mais ren da nga bëre benn combat ak jokkeel daan ko bi nga ko daanee sa combat ak jokkeel sax nga cee dikkaat. waaw mën ci dikkaat parce que maa ko bëre woon. <laughs> dellu si waat. <laughs> te yàgg maar <laughs> cey lii. combat man ak jokkeel boo xam ne dañ ko waroon bëre le 27 juillet. ñu ko mu dem ba la 1er décembre. mu doonoon combat boo xam ni bëri woon na coow trop wax dëgg yàlla déggoon naa lu ne tout ça mais nag moom benn nit lañ boo xamante ni suñu ngëm suñu yoon rek la ñuy topp li ñu war a def la ñuy def waaw amoon yaqin ni bu ñu entraîné def ñu war a def dem fi ñu war a def dinañ daan jokkeel waaw loolu lañ amoon yaqin boobu. mu ñëw def loolu loolu kese la. nga jóge fa coow li bëri ñu naan Mama Lamine dugul moteur nangam nangam coow la ak yeneen i mbër mais dugul moteur da cee gën a siiw ci ñuy tudd di la tudd moom moom. mu jàpp ne moom du sa ad doo adversaire am bi mu war a bëreel moom loolu la jàpp moom staff am loolu yaa ngi dégg coow loolu maa ngi koy dégg am na benn jour ma déglu mu ne mu bëreeg maama la ñu bëreeg duwul moteur loolu da koy yokk kase da koy may borom moom bëreeg yow waaw loolu dama ko dégg sax <laughs> rédaal moo jàpp duwul moteur benn mosuma ko dëkk bi ma bëreeg jokkeel ba ci suba si yéen yéen a def seen plateau ñu laaj leen maama la mi nag essence bi kan la war a bëreel ngeen di cité di lim d'accord léegi moom nag bu demee tey boo wax rek mu ngi yàq xelam te warul demee noonu man moom jóbewuñ noonu waa man mun naa bañ a bëreeg moom sans double moteur man damay bëre man ñi ma mën a bëreel double moteur mënul bëreeg ñooñu moo tax ndax parce que xamante nañ double moteur ba mu bu dalee bëri bu léegi bëriwu feeg benn mbër bu ñu naan kii tey ñu tey tey tey tey ñu rey double moteur waaye yow ban tegal palmarès su double moteur double moteur maa ko gën a baax palmarès maa ko dàq fecc maa ko dàq bëri maa ko ëpp xorom waaw ndëgëraayam rek la ci làmb mais daraay mbër newul ci moom barke xaadim rasul yàq moo ko nag def moo ko dara am na supporter nit ñi bëgg nañ mais daraay mbër newul ci moom lu tax nga ne dara mbër muy bëre di daan benn defar la am nga ne mbër nekkul ci moom léegi yow génneel fu ñim daan nga tegal ma leen benn booy ay paar rek la fi bëreel ay Maguette Seck Alioune Sèye Junior Naaru Sokaas ah kan dañu waxante dëgg baax naa Sokaas ak Alioune Sèye ay paar même bëri naa ak seen grand frère sax fëgg la waaw kala ñu bëri fëgg la dem boobu bëri naa ak fëgg la fëgg la kenn daa waxati fëgg la ci mbër bu populaire bu ñu xam ci ki mu daan fëgg la daan te bu njëkkee woon ci man du jaar ci fëgg la te bu muy daan fëgg la gis nga lu mu daj yow booy boobu dama bëgg moom. loolu gara yaa ni fëgal mu daan fëgal. non boobu ñëw ma stade sax. ñëw boobu maa ngi doon préparation. yaa ngi pré combat waaw. kay mm. sa sa mag la daan. non daf ko daan loolu kenn werante ko mais balaa moo daan fëgal la lam ca daj waxu ko kenn fëgal la du ko jàpp duma ko duma ko duma yu métti comprendre nga yàlla naka ñëw fëgal laa yàqamti rek gis nga lu mu demee noonu. yee mais double moteur kooku man nooloo ma ko comme mbër waaw ndax mënul toog ci télé ñu jox ko micro mu naan maa wala mi bëre ak moom may xaas maa koy may bës bu bëreewul ak man du may wàññi Babacar man sama sama yoon laay topp. est-ce que jàppul daf laa raw tamit wala mu la kase bi. lan la <laughs> am onze combats man am naa neuf victoire deux défaites moom mu am neuf combats. huit victoire xaw ma benn défaite kooku lan la mën lan la ma mën a jaay man damaa ma Youssou Ndour bu bala Gaye dama koo daan ma jógee foofu bëreeg Bour Sine jógee foofu bëreeg Jokkel adversaire yooyu ma daan trois yooyu rek boo ci tegaloon double moteur kenn billahi mun koo daan. kon yow ci kéwél nga gëj a ci kéwél la ma yàlla dimbalee ma gëj a suuf te nag maa ngi ñaan yàlla mu continuer. waaw am na benn xale boo xam ne itam nee na moom faw ngeen laale de. caat bu euh, kële. caatu yoof waaw maa ngi dégg am na promoteur moo comme bu mel ne Assane Ndiaye ne ma caatu yoof laa bëgg seen combat ba ne ko bëriwu maa ngi lu tax dara dama bëgg lu ma bëriwu la moom sama bët mu ci mu ci ma bëree garga 2 2 ngi bëgg a jox double moteur dëgg di ah boo doo bëri caatu yoof te ne double moteur dafa laa ragal non non man waxuma caatu caatu yoof bëri xam moom nit moom di làq-làq ay kii maaka raw wala ci palmarès laa ko teg ak diiral teguma ko fenn yaa ngi dégg yaw man damaa bëree ba pare àdduna ñëpp taxaw ne Mama Lamine Diouf moteur combat bi comprendre nag bu ñu ko dee coow ak man man boog personnel maa taxaw ne bëriwuma ak caatu yof mhm. ragal ko la wala la lu xew ba tey dama kaa ragal <laughs> ah, mën naa bëre de ndax xam naa li mu def bébé jul de bërki démb billaahi caatu yof champion la mbër la mbër kaamil la lu ñuy wët ci mbër yëpp mu ngi ci moom nga yaakaar boo ko bañee ren déwén du ngeen bëri non man bañu mu ne dama koo man dama bëriwul ak caatu yoof mm-hmm. man kay maa ko amul dellu garaaw ah, man day booy boobu day yàgg maar dégg naa yi ko ñëwee dañ koy wóoy de ah noonu la rek ma làmb moom da bëgg lii ñee bëgg lee mm. duur mu dem mu ngi nii dañ koo bëgg moom mu dem di yóotu ñoo xamante ni leer na ko leer yàlla bu doon bëri ay at bu ko jël est-ce que làmb ji bu amee problème du yéen ñi nga xam da di bañante rek doon tobi la yow yaa ngi nii moytu caatu yow. Double Moteur moytu la ni ko waxee. waxuma dama kaa moytu ma bëreeg moom. non dama ni man maa bëree wala loolu ngay du moytu moytu ma maanaam ñu lay jox ngay hésité yooyu noonu nii de man maa mhm. bu leen làmb boole. ñu bëri. mais fi leen boole. non waxuma lam boole wuñ de ba tey ci li nga bëgg dugal man dugg foofu de dama ni la bëreewuma ak. ëllëg bu ñu boolee rek ñu bële mais fi boolewul. non non waxuma làmb boolewuñ de. da kon tey tey ëllëg bu leen làmb boole moo tax ma ne la ñu bëre. waaw moo tax ma ne la tey kon làmb boole wu. non man maa bëriwul ak moom. tey xëy na làmb mën nañoo boole ci coow nit ñi. waaw ah, maama Lamine Thiatou Yoff la Lamine Thiatou Yoff loolu wax wax la amateur yi xam nga li ne seen xel rek la ñuy wax li ne seen xel lu nekkul seen xel duñ ko wax man li ne sama xel muy maanaam tey jii mënuma bëre ak samay morom yëpp mënul nekk onze combat laa bëri ñi ma bëre ñëpp samay morom lañ mais kañ lañ may may sens. sa combat garga dañ ko doon dox. sama combat mag garga dañ ko doon dox. ndax taxawul. non loolu feebar bi la rek mais moom combat yàqu woon na ci moom ñaari yoon waaw. gërëkat la loolu lañ bëgg nag. ñu dégg leen garga de loolu. day dëpp loolu làmb la te ñu ñaar ci biir làmb rek ak bi tëj barrière yi loolu beneen affaire la. nga mu dongali. nga <laughs> ma dongali mu dongali. nga naan yàgg maar làmb a ngi nii. maamaa ngi gargaa ngi. administratif <laughs> <laughs> koo bëgg bëgg na la. ku ma xool ci yow daal na ma mere quoi bëgg na am na solo <laughs> mais euh, tey bu ñu jógee fa tamit dañuy ñëw ci làmb ji ba tey lu mu téye combat ak Papa Sow ñoo doon bëri la 5 avril Pape Fall tëgg ko ñu préparé ba ne ci dernière ligne droite bi. corona bi ñëw bi loolu ñëwee combat bi arrêté nu ngeen ko dundee. waaw métti woon nag mais nag li ñuy wax rek jàmm pexem yàlla ak dogalam suñu borom ma tëralee ay mbiram noonu waaw moom bi ñu ñuy waajal di préparer moom taxaw na rek di xaar comprendre nga waaw bi ko yëgee nag métti nañu man loolu jaar naa ci sama combat maag Jokal aussi noonu la. ñu xëy suba si war a bëri dans deux jours rek ñu ne ñu combat bi yàqu. mënatul am après dañoo mujj delluwaat fi mu Siteu tamit gis nga mu ngi fii di nelaw. est que dàq bi arrangé na la. arrangé nañu ko. dàq ko bëre ko. ren ñu xoolaat leneen. maanaam aj bi ñu ko aj ngeen war ko bëriwaat est-ce que dina baax ci yow. ah lu tax. may laaj. Ah, combat bu ñu aj ba aj ko kay moom mooy lool mais teewul ñun ñu ngi ñu préparé ñu ngi entraîné. xam ngeen ngeen amal affaire. Papa Sow. waaw xam nañ ko waaw. Hmm, signature ba tàngal kër yëngal na leen. métti trop. wét la trop mais nag xam nga loolu yëpp ay stratégie la rek Papa Sow euh, adversaire la boo xamante ni xam nga man moom wax dëgg yàlla mënu ma ko wax lenn lu du rafet waaw noonu rafet moom moom la ñëpp di waxante waaye nag ci côté bëree lañu nu ndaan déggoo ma ne lan daan naan la ah, daa mel ni waa parcelle dañu ànd écrit bu bees 100 pour cent parcelle ànd ñu gis mbër yëpp na ci ginnaaw gis nañ diggante Modou Lo ak Papa Sow ak ñeneen ak ñeneen di ngeen dafa waa sow ak yeneen mbëri parcelle yëpp ñoom ñëpp ñu ànd nekk bolok est ce que loolu di ngeen ko mën a dékku man Modou Lo ba ci kii gën a ndaw ñun ñëpp bu ñu leen rangale woon at bi ne prib si te daal leen Modou Lo men Modou Lo waaw bokk ci gën a ndaw bu ñu leen rangale woon nii hmm. si te daal leen benn par benn maama li nga wax seet nga ko Babacar làmb du yëfu jigéen yëfu góor la boo demee ba am looy ragal bu yóbbu nga tekki sa ngemb Modou Lo buy jàppale Papa Sow loolu c'est normal Papa Franc noonu a Sock noonu c'est normal Franc yooyu yow ay waa parcelle parcelle lañ quoi comprendre mais ñun lu ñu war a def xaaruñu si ay xooluñu si kii li moo ñu teree war a def looloo déedéet mais maanaam maanaam non su ma la déggee maanaam tey kon parcelle Siteu fa dàq bëre waaye dama ne la loolu kay kenn weesutu ko dama ne la Siteu dàqu leen Siteu leen mën ñoom ñëpp parcelle yëpp. parcelle ñëpp ñëpp laa la wax. waxuma <laughs> benn. maama est-ce que nekkoo di set set ay ni ndax c'est seen ànd rek. est-ce que du sa waaye ngay àndal moo tax ngay waxee. non non du loolu sax du ay waaye du ay affaire yooyu man li ma gëm laa gëm. damaa xam suma mbër te damaa xam Siteu comprendre mais quant seen écurie boobu ñuy def yàlla na ci yàlla taxaw jàppale leen comprendre fi ñu bëgg écurie ba yem écurie bi romb foofu mais en tout cas diggante Papa Sow ak Siteu ñu ngi ci suñu liggéey nekk suñu ruq di entraîné def luñu ñu war def buñ ci yàlla yóbbu nag ba ñu war a bëre yàlla nañ ci yàlla may ndam bu sedd guy. Mm-hmm. looy tëjee kàddu yi. sant ak ngërëm waaw di dellu di santuwaat yàlla bu baax a baax di gërëm suma wayjur waaw mu ngi suma yaay merciana di gërëm yaay si tam yi nga xamante ni moo ñu bokk uuf ñëpp ci biir kër gi waaw xoolu lu ko neex ak la ko naqari lépp lay muñ di nuyu Siteu bi nga xamante ni mooy boroomu kër gi comprendre nga ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom dalal ko lu kawe njortam waaw parce que fii gis rek ci àdduna muy dox waaw teral sa waajur moo la tax a jóg ñooñu nit nag danañ ko jiital léeg jiital bi dana am ñu neex waaye dina am ñu naqari waaye chaque jour ñu ci lu neex ci liñ neex lañ nekk. waaw yoon rek yoon rek bi ñu dox leneen lu mooy bañ mu neex la te du doon yoon de. nit ki mënoo def lu la neex lu dul luy yoon lii yoon boo koy def rek mooy lu lay neex ku ci nekk sa yoon ngay topp Babacar boo génnee sa sa yoon yaa ngi dégg mu génnee sama yoon laay topp waaw muy sama rafetlu naa émission bi bu baax a baax di la nuyu di la kontaanee. ñu jaalewaat fuude rek. ok encore une fois moom nañ ma sonn Fodé jéggal waaw ah, depuis des années wax dëgg yàlla gisuñu ko mais nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom xaaral àjjana moom ñoom fekk yëpp ci weeru koor bi baal ak ñëpp di bal ak ñëpp képp kuñ fi wax loo xam ne war ñu la ko fexe ñu lay jéggalu di la baal ak képp koo xamante ni dañ fee wax wax bi nga am lu la ci métti ñu ngi lay jéggalu waaw ah, parce que jaam ak pexeem yàlla ak dogalam te ay jaam lañ xel lañ yar di wax rek waa ñu lay sant bu baax di la gërëm di sant suma yaay maman madame Sarr bu baax a baax a baax ak suma xaadim di gërëm sama xarit yi ñoom Abdou Seck ñoom Serif gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu di gërëm Abu Ndiaase ay Fallou foto ak sama waa koñ yi Sikap Mbaaw ñoom Amana Karbala ñëpp maa leen ziar bu baax ak Sidou Mien Baawa Ngom Marat Cuuj comprendre nga ñun ñëpp ay Aliou Ndiaye Ndiaye maa leen bëggee ñoom fii Ndiaye maa leen sant bu baax di la gërëm ñooñu ñooy xamante ni tey bu ma taxawee pour bëri rek ñoom la waaw maa ngi leen di sant bu baax baax baax di leen gërëm gërëm suma xarit personnel muy mbay waalo waalo waalo maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ànd ko wér suñu borom defal ko ci année yi ñuy ñëw nii suñu borom def ko milliardaire Serigne Bamba yi baa mu boole ko ci sant ak ngërëm ñenn la Pas encore. Pas encore.